wa man ittada bi hadiyi ila yawmi din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar bu baax te di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu boroom mu yàggal ko fi te wéral ko eh, di am mbegte bu baax a baax di ñëw ci seen jataay bi nga xam ne mooy jataayu gàggantiku te daayira Muxaddamatul Xidma di ko def di ko jaarale ci jumtukaayu tas tasukaayu xibaar bii di seen seen MKTV ak support yi nga xam ne ci la nekk ci àddina bi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo koy jëlaat émission gàgganteku nag euh, miin ngeen ko fi mu nekk nii ndax jàpp naa ne yéen a ngi koy topp bu baax li ko waral mooy message yi nga xam ne ñu ngi koy jot ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir di am mbégte bu baax ci gindiku gi nga xam ne ñu ngi koy gindiku ci seen diine te di ko jaarale ci kilifa gii di Serigne Mbacké Abdourahmane euh, xam ngeen ne émission yi jàll tamit sunu doom sëriñ Abdul Xaadir Bousso Alaaji Seex euh, doon nañu fi wuutu ngir doon indi laaj yi nga xam ne moo fi rotoon waaye biñ màggalee ba léegi xëy na émission yi jàllul ngir euh, màggal gi ak gàmmu gi ak liggéey ñu fas ko yéenee nag tàmbaliwaat laaj yi nga xam ne ñëwoon na fi nag bëri na yu ci bëri tontu nañ ci waaye dañuy ñëw ci suñ bindi gàggantiku yi ngir fas ci yéenee continuer fi mu nekk nii. émission gàgganteku nag ñëwaloon na leen ci laab daanaka ñëw na ci fànn yu bëri ndax ñëw na ci e, jàpp ñëw ci sangu farata ya ak sunna ya ñëw na ci massa ay ay sang walla e, ab jam-jam muy muy ku gaañu nan lay nan lay def ba ba man cee jàpp niki noonu ñëw na ci al aydu wan nifaas muy muy muy muy mbërëg ak e, dereti wasin sart ya ci aju yëpp tey nag euh, dañuy génn ci buntub laab ñëw nag ci julli ci la ñuy war fas yéenee gàggantiku tey ji incha allah moo tax tey niñ ko baaxoo defee ñëwaat nañ fii ci Darou Salaam Ndaam ci kër al imam wal mufti Serigne Mbacke Abdourahmane ngir fas yéenee gàggantiku ci bunt bi nga bunt yi nga xam ne ci lañ ci lañ jublu si muy lu aju ci wàllu julli tey danañu gàggantiku ci sart yi nga xam ne mooy wéral julli ak sart yi nga xam ne euh, moo koy waral ak yi nga xam ne da koy day day boole. day tax mu wér day tax mu war ndax yooyu yëpp jullit bi daf ko war a xam julli nag mooy ponk boo xam ne moom daanaka mooy bi nga xam ne ñu bëri ñi ñi ñi ngi koy jooxe waaye ndax xam nañ niñ ko war a defee ndax xam nañ suruur ya ndax xam nañ farata ya ndax xam nañ sunna ya jaadu na kon ñu gàggante ko ci bu baax a baax kon sëriñ bi ñu jox la nga nuyoo ñu dugg ci waxtaan wi. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain sëriñ Abdou Lahad maa ngi lay nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullah di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu ëttu xam-xam bi di siyaare bu baax suñu kilifa bu tedd gi Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye di nuyu mbooleem mbokki waa muxaddamatul xidma ci njiitul al imam sëriñ Afiya di leen siyaare di leen ndokkeel ak sëñ Abdou Khadir mm. di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bu am solo bi waaye di ndokkeel mbokk jullit yi nga xam ne yëpp ñu ngi topp liggéey bi di ko bàyyi xel mm. diine nit diine dafa rëy ci moom mm. na nañu wax ne muy ëpp ci moom li ëpp solo ci moom kon jox ko yitte mandargam baax la mandargam nar a texe la yàlla nu yàlla saxal ci loolu ñu ngi ndokkeel ñëpp daal parce que yéen la jotaay bi ni ñu ko waxee bunt bi ñu génn waajtaay la laltaay la mm-hmm. bu ñuy wax laab ngir mën a jullee tax waajtaay la waaye dëgg-dëgg euh, jëmmi laab ngir laab taxut ñuy wax waaye dañuy laab ngir mën a jaamu yàlla ngir mën a julli mm-hmm. kon tey mel ni liñ jóge am na solo lool waaye liñ jëm ko bu solo mm-hmm. jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane euh, jërëjëf tamit sëñ Abdou bu Bousso euh, ak sëñ Fallou Seye ñoom ñi nga xam ne ñooy yor wàllu technique yi di réaliser émission bi ñu ngi fàttali bi bokk yi ne képp koo xam ne soxla nga laaj ab laaju diine ci biir émission bi man nga ko yónnee ci whatsapp ci numéro bii ma lay jox muy 77 531 91 98 wala 77 678 57 66 soo ci yónnee sab laaj ci whatsapp incha allah sëriñ bi dina la tontu moo xam laaj bu mu a doon rek ci ci diine kon sëñ bi dañuy daal di tàbbi ci suñu laaj bu njëkk Euh, lan mooy julli ak yan yan moo koy wéral dëgg-dëgg. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad <coughs> julli dafa am solo ndax mooy buum gi jokkale jaam ñi ak seen borom. Uh-huh. subhaanahu wa bokk na ci liy firndeel soloom sëriñ Abdou Lahad uh-huh. yowmal xiyaam li dox diggante jaam ñi ak seen borom julli lañ ci njëkk seet loolu moo ko wax nee yi njëkk a lëñbat awalu maa yuxaasabu alayhi alabdu yowma alqiyamati assala hmm. xam ne bu jagee ñu am yaakaar ci lépp jag na bu jagul dara mën na bañ a dem hmm. moo taxoon Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwanullahi albaqi alxadim waxoon ne dee leen julli te di ko jubal ñu hmm. wax dafa tàllal loxo mu tedd ba bu ngeen dee julli te di ko jubal dana tax lu ngeen dëngaloon julli nga jubal ko wane kon solo julli dafa tënk rek maanaam xadis boobu mhm. bu julli jagee la ci lépp mën naa jàpp kon lu am solo la euh, di ponk bu jiitu ci ponk yi diine ginnaaw ñaari baati seede yi kon xam mbiram xam la ci aju warteef la ci julli bu ne mhm. euh, ci faraidul ayni yi nga xam ne war kàllaf mu xam la ci aju euh, julli ginnaaw wéetal yàlla jàllee julli ci ëpp solo mhm. julli nag dafa am ay charte ay charte yoo xam ne dañ ko waxee day séddale ko ci ñetti xaaj sart yooyu tax julli war nit ki mhm. xam ne fi ak sart ba ñëwut ci moom julli waru ko kenn santu ko ko bu ko defutit kenn du ko ci te topp dara ak sart yoo xam ne bu la waree ba noppi wala warul sax waaye yi tax julli wér mhm. mooy dem na xam ne sart la comme dayee ci yow bu dayee ci julli gi julli gi wér na bu ci dajewut julli gi wérul mhm. ak yoo xam ne ñaar yëpp la boole sart bii daal day bu amee julli war la te boo julli julli ko baax waaye bu amul julli waru la te boo julli woon julli ko baaxul sartu yooyu nag yi nga xam ne mooy tax julli war yoonu nit ki nekku ci moom da toog ba yàlla gàll la ko waaye sart yi tax julli wér yow yaa ko war a wuti yow mu kàllaf mi yaa war a fexe ba sart yi nga amal ko waaye yi tax julli war la nag sa yoon nekku ci mm-hmm. da toog ba moom dal sa kaw bu njëkk bi daal moom moom moom moom suñ borom la koy gàll. moo la koy gàll waaw. Mm-hmm. waaye ci des mooy mësoor ak ak ak ak baarix ak yu demee noonu danañ ci ñëw waaw. bu ko defee yi tax nag julli ji wér moom yaa war dem wuti ko. Mm-hmm. bu ko defee sart yëpp boo ko boolee. Mm-hmm. fukki sart lañ ak ñaar. fukki sart ak ñaar lañ. séddale ko ci ñetti xaaj yi bii nga xam ne mooy tax mooy sart wu jóob mu benn lañ. ala saxi sart bi tax julli war nit mooy mu nekk baarix. baa def mooy mu majeur majeur nit hmm. ki daal génn na ci ak ngone doon ci mag am nay màndarga yuñ tëree jàngale eh, bokk na ca nit ki sax ay kawar yu bokkut ak yim kawar yuñ gudduwaale na ca eh, bu dee jigéen mu gis baax hmm. bokk na ca yooyu yëpp bu jàllee bu amee fukki at ak juróom-ñett donte gisul benn mandarga ci mandarga yooyu saxutub si kim saxut yenn kawar hmm. waaye am na fukki at ak juróom-ñett day jàpp ne mukallaf la wala boog baaleex na baaleex googu mooy tax nit ki julli war ko kon gone yi nga xam ne baaleexaguñ julli warut leen hmm. du tee nag ci sunna gone bu tàbbee ci juróom-ñaareelu atam nit ñi dañuy wax bu gone amee juróom-ñaareel waaye li wér mooy bu tàbbee ci juróom-ñaari atam hmm. mooy kon matal na juróom benn foofu dañ koy digal julli hmm. di ko ci xéer ngir tàmm ngir mu mën koo tàmm donte waragu ko waaye bu ko defee yiw la tojre ba lay doon waaw mu di ci mu di ci tàggatu. Mm-hmm. boo amee fukki at yonent bi salaam nee na nañ ko bàcc bàccal bu gàntoo bu ñu amee yaakaar ci ne dóor yi mën na am njëriñ waaye bu mu dam mu yàq bu mu génne dara. Mm-hmm. kon dóor yi yam ngir soññ ko mu xam ne lii farata la jox ne waru ko sàggane loolu ci julli donte ñooñu waragu leen waaye sart nañ loolu waaye nag bala koo war moom nekk farata ci aw loosam bu ko defee am tuyaaba bu ko defut am bàkkaar mooy day nekk baaleex day nekk majeur. Mm-hmm. kon sart boobu moom doomu aadama ji du ne mooy naan tey moo doon tey mu majeur yàlla teg ko hmm. kooku charte mooy charte bi tax julli war la am juróomi charte yu topp yoo xam ne mooy tax julli gi hmm. yooyu nag nit ki moo war a dem wuti ko yaa war a dem fexe bu matal charte yooyu bi ci njëkk ci charte yooyu say blaat mooy tahaaratu alxadaf mooy nga laab hmm. ci am toj ñëwoon nañ ci waaw nga laaj ci am toj mu jàngoon maanaam bu la jàpp waree wala sangu war la nga def ko soo ko mënul nga tiim loolu moom nit ki boo war dafay nodd nañ waxtu julli jot na jàpp goo dama wuti ndox nga jàpp boo ko mënul dama wuti suuf nga tiim loolu ko mooy tax sa julli boo jekk-jekkoon julli noonu te laa boo julli gi baaxul yàqu julliwut gis ñuy julli rek nga tëb daal di ànd ci julli ga yow d'accord mooy sart bi jiitu ci sart yi tax julli wér ñaareel ba laabu xabas mooy nga laab ci sobe laab ci sobe mooy bul takk sobe ñaar yu jege la bokkuñ. Mhm. nit ki mën naa jàpp ba noppi ay yére takk sobe. wala yaram mu takk sobe wala barab bi mu taxaw di julli. Mhm. sajaara bi mu lal sajaara bi takk sobe. ñetti barab yooyu nga fexe ba mu laab sa yaram bu mu takk sobe sa yére yi nga sol bu mu takk sobe sa jaara bi nga taxaw du julli bu mu takk sobe bul yanu sobe fenn dal mhm. moo tax ñu bàyyi loo xel jigéen ñi boot ku yor gone mu takk ab defal ko ab couche gone gi dafaru ci couche bi nga boot ko di julli boo jullee julli ko du baax mhm. ndax julli nga yanu sobe yi ma di bàyyi xel la kon bul yanu sobe fenn lu sew sew la woon bul fenn mhm. léegi nag loolu ba tey yaa ko war a wuti yaa war a fexe ba xool ne mbubb ma solkat laab ma mhm. sama yaram kat takkut fenn sobe fu mu takku sobe nga raxasu sa jaada bi ma lal wala barab bi mu taxaw di jul amut sobe barab bi nga taxaw nag jëmmi fi nga taxaw moom lañ soxla bu fekkoon ne fii daa takku ab tappi bu tal laal ko ci kawam nga xam ne sobe sa du du jéggi uh-huh. boo jullee ci kaw loolu laab na baax na kon sa loolu mooy ñaareelu sart ci tax julli wér mooy ci sa yaram ci sa yére ak barab bi nga taxaw di julli boobu nit ki moo ko war a wuti bàyyi xel loolu kon euh, ñetteelu sart yi waaye nag sart boobu ñu bàyyi xel ne moom waajib la charte la bokk waaye nag ci kaw nga fàttaliku ko te man ko mm-hmm. loolu ci am solo ñu bàyyi ko xel koo xam ne tey daa jàppoon ne mbu muy amul sobe mu sol ko julli ba sëlma door a yëg ne julli gi baax na mm-hmm. waaye sopp nañ bu waxtu jeexul mu baamuwaat kooku da ko fàtte mm-hmm. moom menn mbubb la am ndox mu ko raxasi amu fi mu mu taq na sobe amu ndox da koy julliwaale kooku mooy da ko mënta maanaam fàtte wut sobe si waaye mënu koo dindi mhm. kooku it xanaa amul ndox moom ko dindee waaw amul ndox mhm. kon ma zikri wal qudra la ñuy wax dañuy wax ne laa bu xabas ah laa bu xabas euh, charte la ci wérub julli waaye ci kaw nga fàttaliku ko mhm. te mën koo dindi ki ci lott da koy julli waale ki ko fàtte ba julli ba sama julli ko baax na waaye nag ñoom ñëpp sopp nañ baa ma ci waxtu waxtu jeexul bu waxtu waxasee jeex nag julli gu baax na doo ko def lu am. dara du leen ci war. waaw hmm. ñetteelu sart yooyu mooy suturaal sa awra kii julli day awra awra nag am na awra joo xam ne bu feeñee julli gi yàqu da ngay baamu abadan mooy li ñuy tuddee awra ju mag. Hmm. awra ju bu dee ci góor mooy as saw ataan ku gembu gembu. Hmm. li ngembu li làq loolu mooy awra ju mag. ci ginnaaw loolu moom bu feeñee julli gi yàqu na da ngay doon abadan. waaye li tàmbulee ci jumbox bi ba ci bëti wóom yi ci kanam ci ginnaaw loolu awra la waaye awra xafiifa la hmm. ku julli lenn feeñ ci loolu sopp nañ baamu julli kon ci góor jàppal ne li tàmbulee ci jum xam ba ci bëti wóom daal la war a muur julli ji wér bu defee yaramu neen julli ko dafa yow julli julli baax na doon nag du teggin hmm. ndax xudu zinatakum inda kulli masjid hmm. waaye jël leen ko la waaye nag bu defoon li ma wax nii li tàmbulee jum xam ba ci bëti wóom ci kanam ci ginnaaw muur ko bu jullee julli gi wér na donte nag sàmmuti teggin te teggin nag lu am la ci mbir waaye gi wér waaye nag saw ataar yi bu ñu feeñee moom day baamu abadan hmm. yooyu mu wax muy lupp wala yu mel bu feeñee day baamu ci waxtu te julli baax na ku sol ab caax ni ab selenment ak folotan di dugg ci jumaa yi ci buntub teggin la waaye nag du ci buntub wéru julli ñàkk wér moom hmm. bu dee jigéen nag awraam ju mag mooy li tàmbalee ci ab dënnam ba ci bëti woowu hmm. loolu ci kanama ci ginnaaw awra ju mag la bu dara ci dara feeñee julli gu baaxul waaye ay atraafam li tàmbalee dënam jëm kaw ba ci boppam wala ay bëtiwam jëm suuf bu feeñee julli ga baax na waaye sopp nañ bamwaat hmm. kon loolu mooy euh, loolu ne ba tey ci kaw nga fàttali ko ko te man ko la ku julli bu sëlmal fàtte woon ne awraam a ngi feeñ te yëgu ko julli ga baax na sopp nañ ba am ci waxtu hmm. bu dee jigéen ñi seen garam bu bi xappati ñuy sol nii ba tey mënta julli dëgg dëgg ndax julli gu mat ñu ko ndax lii feeñ ci baat bi mhm. kawar gi awra la mhm. donte awra ju woyof la tànk yi awra la donte ju woyof la dañu bëgg muul kon soo ko boo julee mu feeñ dëgg la julli ga baax na de charaan waaye nag manqué na mhm. moo tax ñu bëgg nga baamu ko nit nag buy def daa war a fex ba def lu mat li gën a mat mooy li bari na ci ñu ci mën a sàggan lool da nga xam ne dañuy sol grand mbubu boo xam ne daanaka xam nga li gënoon suñu blaatu jigéen ñi wut mbubum julli waaw nga xam ne moom da nga koy teg boo julli sol su julli jotee nga sol ko mu doon mbubu mat sëkk jot sëkk a ndax dañuy wax ne euh, tànk yi sax yëpp awra la hmm. ko tànk yi awra su ko defee loolu nag na fekk mu man ko te fàttewu ko hmm. waaye ki ko fàtte ba julli baax na na mu ci waxtu ki ko tëlee day julli parce que tey nit ko amutoon yére xam ne yaramu ne la def du tey bu julli jotee julli war ko mhm. waaye nag kooku moom day tëju di julli loolu nga wax sëñ bi lu am solo la maanaam jigéen ñi jar nañu wut mbubb moo xam ne dañ koy lëkkaleeg seen sijaada rek mhm, suñu julli rek sol ko mhm. buñ noppee summi waat waaw rawatina jigéen juy nàmpal nga xam ne léeg gone yi ñu yor euh, taqoog sobe maanaam taqali ko sobe mën na xaw a jafe ñu waajal am mbubb dañ koy sopp wutal mbubb moo xam ne mbubb julli la naka noonu ñëpp ñuy yëngu ci sobe dañuy bëgg ñu wut mbubb ngir julli xanaa bu julli jotee nga summi la nga soloon ñi yëngu ci sobe ñi defar ay foos ak mhm. ay neefere yi rab yi nga xam ne seen neefere sobe la ay fas yeeg mbaam yeeg yu mel noonu buuse yeeg buuse yeeg yëpp nga xam ne taq deret mhm. dañuy bëgg ñu am buumu julli julli jotee ñuy summi yi di liggéeyukaay yi nga xam ne day taq deret wala mu taq sobe eh, ndax deret sobe la bu dee deret yuñ tuur bu dee mécanicien yeeg lu mel ne polumi yeeg yooyu yooyu moom du sobe bu mhm. fekkee ne matière bi ñu ko defaree du sobe moom du sobe waaye nag ba tey dàqoonte nag xudoo zinatakum ñooñu bu ñu demee yi dañuy taqal jàkka yi ñoom itam waaw waaw loolu mën a bàyyi xel bu dee dañu bëgg dem jàkka jawm wut mbuum julli ba tey ñoom it baax na ci mm-hmm. kon muur awra ci anam googu mu wax bu dee góor jigéen loolu day tax julli gi mm-hmm. nit ki moo ko war a def bu ko fàttalikoo te man ko bu ko deful julli gi baaxul euh, bi ci topp mooy jublu xibla mm-hmm. nit ki buy julli jublu xibla wolof nag danay wax jublu penku waaye du noonu la fii ñu dëkk ñun penku mooy sunu xibla waaye am na ñoo xam ne seen xibla sowwu la mhm. xibla mooy fi kaaba ga nekk boo nekkee màkka da ngaa war a jàkkaarloo jëmmi kaaba gi boo fa nekkul nag barab bu fa fa màkk féete mhm. te loolu bu njëkk léeg-léeg daan na jafe ndax xam-xam bu xaw a xóot la mhm. waaye jumtuwaay xar lay tax na léegi xam xibla jafetul téléphone yu muus yi yëpp am na application yoo xam ne boo ko jëfandikoo foo nekk ci àdduna mën na laa woon fa xibla féete da koy teg rek barab bu yam kon yu mel noonu it nit war na ko bàyyi xel ndax foofu daa bokk ci sart yi tax julli gi wér mhm. ci kaw nga man ko te fàttewoo ko waaye koo xam ne dafa nekk foo xam ne xamul fu xibla féete kooku dañ koy sant muy julli ci jàkk ji bu ba jàkk bu demee moom xiblay jàkk ji juboo ci dàkkee si jarwàcce waaye boo nekkee foo xam ne jàkk newu fa gisoo kenn kooku laaj amul benn jumtuwaay boo sukkandiku pour xam fu xibla féete mhm. foo dàkk jublu baax na dàkkal fenn rek julli fa boo julli woon ba sëlmal waxtu wa jeex nit ñëw ne la foofu du xibla julli ga baaxal ñàkk xam xibla daal du wulaay moom bu fekkee waxtu wa jeexutit sopp nañ nga baamu rek la hmm. waaye fi nga julli woon baax na julli ga bu ñu waxee ci julli sopp nañ ko mooy hmm. day wane ne wér na hmm. kon ñàkk xam fu xibla fee teewut a julli boo xamee fa mu féete mu leer da koy def boo ko xamul nag gisoo kooko laaj foo dàkk baax na donte léegi moom jumtuwaay bari na yomb koo xam ne jàpp naa ne nekkatul jafe-jafe mhm. kon wax naa laabug laab ci sobe. Mhm. laabug xadas muy toj laabug sobe. Mhm. muur awra. jublu xibla. ak muy ñeent muy ñeent. des na benn muy lislaam. ñu wax ne al islam chartu la. yéefar yi julli war na leen waaye laa yasixu minhum ndax dugguñ ci diine dugguñ ci diine. kon bu yowal xam bu ñu leen di mbugal bàkkaar yi bari julli ci bàkkaar yi lay bokk ndax ñoom ñëpp la julli war léegi nag mënta wér ci ñoom feek dugguñ ci lislaam hmm. bu ñu demoon fee def lu julli ñuy def loolu du tudd julli du am njëriñ dañuy dugg ci lislaam julli gi doon wér kon sartu sexa la hmm. sart la boo xam ne mooy tax julli kon faaw nit ki doon ab jullit sutural awraam jublu la laabal yaramam ak yéeram ak barab bi mu taxaw waaye jàpp bu ko jàpp waree sangu bu ko sangu waree hmm. juróom yi nag nit ki moo ko war def loolu mooy sart yi julli sart yi nga xam ne dafa boole ñaar yëpp nag hmm. moom juróom benn lañ ndax lu tax ñu wax ñaari yi fi ni sart yi tax julli war la moom benn la muy buloo boo julli woon julli waru la it julli gu baax moom sartu seex sartu wujub dong la hmm. waaye nekku sartu seex maanaam gone gi bu jullee julli gu baax na dana tuyaaba yi ma bëgg a wax nag bu dajewut julli waruloo te boo jullee du baax hmm. bi ci njëkk mooy bulooxu daawa mooy nit ki na yëg na yonent yàlla Muhammad yàlla yónni na ko woote na képp koo xam ne jotugoo woote bi nekk ko mu kàllaf ndax yàlla du mbugal nit te jox ko ndigal ba noppi hmm. kon faw nit ki yëg ne lislaam am na bu yàlla amoon bu amoon yàlla dogaloon ab barab boo xam ne ña fa nekk xamuñ luy lislaam ñooñu duñu ñooñu duñu mu kàllaf hmm. kon bu loxu ba am xel nit ku nit diku amut xel julli waru bu taxawoon daf li nit ñi defee du julli kenn du ko jàpp waaw nga am ak wér dal waaw moom nag bu wéroo nit kenn du ko fay law hmm. bu wéree kenn du ko fay law julli wàcc na kon ñaara ngoog hmm. ñetteel ba du xoolul waqt maanaam julli balaa war nit waxtu yi masalan tey léeg-léeg gis koo xam day wax ne man damay tukki war fay jógee midi te une heure et demie la di jot te xam naa ne yooyu doo ndax man na maa julli jiital déedéet waragoo waragu la mm-hmm. kon waragu la waroo koo def boo ko defee du baax maanaam boo ko defoon ñu yàkkamte julli de moom. waaw ah, bon faaw te nag deesu ko teg ci sikk sàkk it nag. Mm-hmm. gis nga boo julli woon di sikk sàkk waxtu jot na jotut. Mm-hmm. julli ko baaxul doonte ginnaaw bi xam nga ne jotoon na waaye danga ko war a tabax ci yàqin. da nga war a am lu leer nañ ñi ci de waxtu bi moo tax it xam waxtu lu am solo la mm-hmm. loolu it woon na ci ay jamono waaye léegi application yi muy wax barab boo nekk mën nga ko régler xam kañ la fa waxtu jot mm-hmm. lu am solo la mata bàyyi xel la mata jox yitte la it kon euh, tàbbi waxtu sart la ngir julli war nit ki sart la ngir julli gi wér mm-hmm. tàbbi waxtu duxulul waxtu waaw waxtu kon tisbaar am na waxtu takkusaan julli waxtu juróom yëpp ci nekk na waxtu mm. fii waxtoom jotagut boo jullee julli googu baaxul léeg-léeg nag am fu ñuy boolee julli jiital dana dem maanaam tisbaar dana jot nga julli julli waale takkusaan loolu am na fuñ ko mayee ruxsa la ci yenn barab mm. wala timis jot nga julli timis julli waale gee bu dee foo am jàkka daal bàyyi ba dégg nodd daal doo ko jëm gën a wóor ah. bu amee nag jumtuwaay xarala yi amee jumtuwaay sa téléphone moom ah, man nga cee jëfandiku hmm. rawatina léegi it barab yu bari am na ay nit ñoo xam ne ci seen groupe yi waaw saa xëyee dañ tasaare dañ dugal waxtu julli waaw walaay ah, bari na ci waaw ne hmm. la ci ci wàllu googu fexe ba di tasaare waxtu julli hmm. yooyu noonu bari na ñu mel noonu ku ci fexe ba di ci amit it dana la dimbale bis set nga xam kañ la wax jant bi soo kañ la tisbaar takkusaan waxtu yëpp kañ la jot am solo la beneen bi ci des sëñ Abdou Lahad mooy alqudratu ala tahurayni hmm. wala boog alqudratu ala istimaali tahur nga mën a laab attan am kàttanug laab nga mën a laab tëlee laab ñaar na ko waral hmm. da nga wér bu mënoo yëngatu wala dañ lay yeew ba nga ne ngod mënoo yënga benn cër soo ba ngoon julli wàcc na la hmm. kuñ ko ci barab fekk biñ ko yeew te laabu yeewu ko tisbaar ba jant bi so tisbaar wàcc na ko takkusaan wàcc na wax mënti la <coughs> ko war wàcc na ko da koy wàcc du ko ah. waroon moo koy wàcc maanaam sartu si xala wujo hmm. bu julli woon noona julli ko du baax masha Allah julli waru ko te bu julli woon du baax naka noonu koo xam ni waxtu ju daa jot amul ndox moom jàpp amul barab bu mu tiimee hmm. ci misaal maa ngi dañ ko daan misaal ku yéegoon ci ak garab gaye na ñëw waaf ci ron garab gi bu dee sëñ bu sooy moom day yandu ci garab bi xalaat te wàcc te kaw bant yooyu kenn du ci tiim mm-hmm. te fekk bi muy yëg tiim jàpputoon bu mm-hmm. fekkoon jàpputoon day julli ci kaw garab waaye jàpput ba jant bi soo gaynde gi door dem mu wàcc tisbaar takkusaan wàcc wax am na ci waaye loolu mooy imaam Malik tànn lim soxla waaw tànn moo di ne koo xam ngir ngir nit ki wax julli war ko day fekk mën a laab mm-hmm. yàlla da ko lëkkaleeg laab wala na ba mënoo laab ci genn anam julli ko wàcc na la dégg nga. Hmm. bi ci topp mooy nga ñàkk ko fàtte ñàkk nelaw kuy nelaw waxtu julliwoo jamono jooju moom waru ko bu julli woon ci biir nelaw yi baaxut. Hmm. waaye nag moom bu yeewoo da koy war. kon wut wax léegi moom bu yeewoo wala nga sàggane ko fàtte ko ba mu weesu nga ne ci sama xel génn ci maanaam waru jamono jooju ndax sama xel na wu ci. Hmm. waaye saa boo ko fàttali ko war nga ko julli. ko day wuuteeg ki ñàkk kii moom kii moom du fay du julli ci na mu ñàkk laab gi te du ko fay. beneen bi ci des mooy bu dee jigéen ko moom mooy jigéen ji na set ci ñaari deret hmm. dereti mbërëg ak dereti meret waaye jigéen ju gis baax wala mu am doom hmm. julli waru ko feek setut ba sangu te bu julli woon ak deret yi julli ko baaxul hmm. moom nag du ko fay julli yooyu du ay bor dañ ko jéggal jamono yi du julli moo xam baax la moo xam nifaas la kon yooyu it euh, su dalee nit ki moom day bàyyi julli bu jeexee ba mu sangu nag door a tàmbalee julli. Oh. waaye nag mu bàyyi xel ne saa bu setee war nay nemmi ko boppam ci ñaari waxtu yi. Mm-hmm. bu bu bala tëdd baax na mu nemmi ko boppam ndax gee war na ko ak activiste ndax fi ne ku demoon ba 11h masalan mu nemmi ko mu set day war a sangu julli timis ak gee. Mm-hmm. ndax mi ngi ci. biir muxtaar bi muxtaar ak euh, gee ak ak yi timis. Mm-hmm. bu fajarit mu teel a yeewu baax na yeewu daal di xool boppam bu setee bu fi xajee mu bu fi dara xajut nag fekk fajar jot fajar koy war kon daal waxtu wi mu set man fee sangu mu des dara julli war julli war na ko ci bu desee benn rakka day julli genn genn julli bu desee lu mat lopp ñeenti rakka nag mu julli ñaari julli yëpp bu doon timis ak gee wala takkusaani suuf noonu mu set sangu xaaj fi day fay tisbaar ak takkusaan da bokk waxtu mm-hmm. kon moo tax dañuy bëgg jigéen ñi ko bàyyi xel bu baax macha allah sëñ jeex na wala des na loolu mooy juróom yi li ci njëkk waxoon mm-hmm. eh, woote bi mm-hmm. ànd akum xel eh, waxtu wi tàbbi nga mën a jëfandikoo luy laabal ne ci nelaw fàttewoo ko te jigéen la yorut nifaas yorut bërëb juróom benn yi sartu wujub la sartu sixa la ku mu dajewul ci moom julli waru la boo jullee julli ko baaxul macha allah leer na nañ xam naa dafa dajanteeg waxtu yu jot xam naa dañuy yam foofu bu defee teg suñ baaraam foofu rek bu ñëwatee di gàgganteku tàmbalee foofu wéyal bind bi nga xam ne moom la ñuy jox ci julli kon sëñ bi ñu bàyyi la nga tàggatoo jërëjëf sëñ xanaa dellu nuyu mbokk yi di wax ne lii it lu am solo la mhm. ndax yàlla moo ci aju mhm. jaamu yàlla gi gën a ci jaamu yàlla yi laa wax mhm. bi ci des it nag jar na bàyyi xel sëñ Abdoulaye ndax borom bi nee na julli day dox diggante nit ki ak ñawteef macha allah inna salaata tanha su mhm. mel ni jaar ni meramel mhm. lépp lu ne woon teew ci sikk dana ko dindi mhm. kon kuy julli ba tey nga wéy di ne war ngaa seet ni ngay julli te fexe ba xam yëpp nag mu leer la nga di ko bàyyi xel dana la dimbali ba nga julli julli gu jaar yoon te boo ko defee sa lépp jag yàlla na ko yàlla boole defal barakallahu fiika eh, sëriñ bi yal na yàlla may la gudd fan ak wér eh, am na solo lool mbokk yi seen émission gàggantiku mi ngi nii di émission bu am njariñ lool ci bokki jullit yi ngir ñetti mbir am na ci mooy danañu fàttali danañu jàngal danañu yee tamit ci suñu diine muy lépp muy ñetti mbir yoo xam ne mënut a ñàkk ci jullit bi kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant it bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci MKTV ak seen seen euh, GMT TV ak support yi nga xam ne ñoo lëkkaloo ak ñooñu di leen dig daje ci suñu beneen jataay bala ñoo yëkkati jataay bi ñu fàttali leen na leen képp koo xam ne am nga laaju diine boo bëgg laaj ngir mu ñëw ci sëriñ Mbàkke Abdourahman man nga woote ci euh, di jar ngay woote sax man nga yónnee message whatsapp man nga yónnee message whatsapp ci numéro bi 77 531 91 98 77 678 57 66 boo ci yónnee sa laaju diine danañ la tontu incha allah émission bi danay am ci weer wu nekk la 9 ak. Euh, bala ñuy tëj suñu kàddu rek ñi ngi euh, bokk di naqarlu euh, ak ànd ak mettit wi suñu bokk jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf su tel suuf di suufu Palestine te ñu nekk di jàngoonteeg ay coona ay noon yi di leen bombardé di di rey ay jullit ay gone ñu ngi koy mettitlu bu baax a baax di ñaan suñu borom mu yërëm leen te dimbali leen tamit barkati xaadim rasul kon ñi ngi sant sëñ Abdou Khadir mi réalisé émission bi ak sëñ Fallou Sey mi nekkoon ci caméra bi di leen dig daje incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam